ci fusti bi zarfil xasanaat ci wone ne yonent yàlla ci cërub sunu borom la boo xam ne dañ koo war a def yonent niñ defee yonent yeen ñeneen yonent yëpp waaw layal na ko yaa umma ruuxil maaliki yaa umma jaalil haaliki ibnu kilaabi haaliki ndax ñee jàppoon nañ ne rey nañ ko wa maa xataluuhu wa maa salabuuhu walakin subbiha lahum alquran la mën nañ ca moom yeneen la foofu loolu moom beneen domaine boppam lay doon waaye waaye ñu bàyyi ma avance ma ma tuuti ci lii ma jëmoon ndax yaakaar naa ne waaw kay mi ngoog waaw waaw tafsir Mbacke Ndoumbé jàngal ko xam-xam mu peeg funun yu yëpp nga xam ne tey jii su fekkente ne bii ci ñu ah, ñu tuddee euh, euh, jurisprudence islamique jurisconsulte man nañ ne tey jàng na ba jàng muxtasar Cheikh Khalil nga xam ne léegi loi islamique amatut lu ko ci ëmb ump moom soxna Jaara muxtasar Cheikh Khalil xam na lu bëgg a bëgg ci jaamu yàlla xam na xam amutu ci kumpa dégg nga bu fekkente ne bii ci littérature arab la al adabul arabi jàng na maqamatul xariri ak yeneen téere su fekkee ci siira nabawiya la sentence prophétique ak yu demee noonu jàng na ay téere yu du jeex ibnul muhayyab ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba lenn lu ci nekk mu pekk bi mu defee loolu ba noppi nag dafa dal di sóobu yoonu wut yàlla wi gaa yi baax yi di jaar ngir wut seen borom defu futteeku ngir wut sunu borom. balaa soo gi digganteem ak dalaa'ilul da da ko mokkaloon da ko mokkaloon bu wóor a wóor a wóor moom ñi ñi ñiy wax ci moom xam nañ ne salawaat ala nabi am na yeneen sax yoo xam ne soxna jaara xuwatul daakira maanaam xuwatul xaafida bi ko suñu borom defaloon ci mën a mokkal mokkal na yeneen yoo xam ne sax du dalaa'ilul xayraat am na ñu ko wax ci moom loolu mokkaloon na ko bi imam Jazuli loolu moo ko doon na ko ak yeneen ak yeneen waaye dafa sóobu yoonu tasawuf ni ko niti yàlla yi sóoboo ci diggante bu gàtt waaye moom dafa am particularité bu nekk ci moom ci diggante boobu mooy dafa sóobu yoonu yàlla te yàqalu ko li war a séq ak sëñ Mor Anta Sali ni mu war a jaamoo boroomam ci ay farataam farata yi dara du ci manqué li mu war a lëggéeyal sëñ Mor Anta Sali ci biir kër gi dara du ci manqué ndax daara ju rëy la sëñ Mor Anta Sali yoroon day soq day root day wuti ndox ñu di ko kar mu koy sottil ñi koy kar donga yi di leen ko jox ba ndox mi jeex mu wëlbati kook ndabam dem wuti waat ko day wol day taxan yooyu yëpp da ko boole di ko def te yàqul dara ci jàmm yàlla gi. te dañuy wax ne jigéen ju doon sàkku barke la li wut ngërëmul yàlla. waaw yàlla jox ko ko tàmbalee ko ci njabootam. Mhm. bu amoon ku tedd ki sëriñ bi rek suñu yaakaar ji dañ naan lii daal xam naa ne chance la rek. doy na résultat waaye boo jëlee sëñ Mamour Diarra jël ñeneen ñi mu bokkal soxna Diarra diggante boobu nga ñëwul ñu ci tuuti. waaw soxna loolu moom ci gàttal sëñ Mor Diarra dafa wax ne sëñ Touba day mbirum yàlla waaye yaafusuma Mamour Diarra koo xam ne bu guddi gi a jot. da nga naafila kaamil téeméeri rakkaa ci génn guddi kooku wax dëgg yàlla kursu bi dawandoo ceeg yow jafe na waaye ci biir kursu bi nag sëñ Tuubaa outsider la ci seen ci affaire bi moom beneen affaire la loolu nag mooy affaire bi sëñ moom day mbir moo xam ne suñ boroom a ko xam waaye sëñ bi ñooñu mu bokkaloon ñoo ñëpp kenn ku ci nekk ak cër sa cëru bopp bi la suñ borom jox xam na sa cër la yaa ko liggéey sa digganteek sa boroom wetti ñaq ba yàlla teg ko ci sa sëñ bii nag wetti na ñaq bu wóor waaye suñ boroom dafa am nu mu doxaleeg moom noo xam ne aju ko ci kaw ñaqam wow mu wetti yàlla dafa jëfandikoo coobareem ci moom sonn na lool coono boo xam ne kenn mësu ko sonn te yooyu defe naa ne buñ ci duggoon rek diggante bi ko yi ko tubaab yi exilé fi mu jaar coono yiñ ko teg ak ni ni mu ko supporté euh, courage bi mu àndaloon nag diplomatie bi mu ko booleel ak yooyu yëpp boo ci jaaree ba sëñ Tuubaa tra euh, génn yooyu nim ni ni mu traversé yooyu te amul benn lu ñuy xeeb ci fi mu jaar te fi mu jaar ko fa jaar taqaban wér na lu wér a wér la ndax fi ko jaarale moo doy war ak ñiim ñi mu ko seqaloon ñu jaarale ko fa ci ngay xam ne kii suñ borom beral na ko cëru boppam boo xam ne yoonu kenn nekku ci loolu digganteem la ak borom. teewul nag ñi ngay wax di ay jàmbaar yi fàkki tëdd. kon léegi dañuy ñëwaat rek kon ci diggante soxna jaare yi ñu duppee soxna su mag si muy soxna Mariama Bousso kon daaray Porokhane la ñuy dugalaat. Mhm. muy biñ ko bi ko sëñ Bachirou. Mhm. ba sëñ Suba biñ ko taxawalee. Mhm. daaray Porokhane yoo xam ne turandooy soxna si ñoo koy jàngee di waxtu téereb yàlla bi di ko bind te duñ ko xool. waaw léegi nga indil ñu ci historique bu daaray Porokhane bi. li ñu laaj bi rek mooy dañoo wax ne sëñ Mamour euh, sëñ Mbacke Ibra ñoom la sëñ bi seere ñoom ne ñoo ci biir bàmmeel te yóbbaale wuñ bor yóbbaale wuñ bakkaar waaw loolu loolu kay moom siiw na maa defee na sax yeneen waaye loolu moom loolu sëñ bi seereel na leen ko bu baax a baax a baax sëñ Mbacke Ibra ak sëñ moor Diarra bu baax dem nañ bàmmeel te bakkaar topp leen bor bor bor topp leen bakkaar tombul topp leen waaw lu jafe ci nit ci ci doomi soxna waaw daara soxna Diarra itam ni nga ko ni ma la ko waxee léegi rek daanaka ni ma doon chronologie bi bi ma toppoon li ma doon def booba ci soxna si laa jëm si woon pour jeexitu poroxaan rek ñu ñu xam ne ndénkaan li day ndénkaan lu rëy soxna jaare fii lii li mu daj lépp ci ay coono ak i liggéey bi ko bi mu ko dajee ba noppi fi mu mujj ci zahir mooy poroxaan poroxaan la ñëw yàggu fa daanaka mën nañ ne at ak lu topp presque dix-huit mois la fa la fa la fa def dal di nelaw waaye nag dafa nelaw ñu denc ko fa sëñ waa fonkoon soxna si daan ko bàyyi xel ndax taxawaayu soxna jaare ci moom loolu sëñ bi dafa rëy lool ci moom sëñ bi da daan wax ne musuma gis ku dàq denc secret soxna jaara ndax sëñ bi gërëm na ko lool ci sutura suturaal gi mu ko suturaal maanaa téyel ko kumpaam ba siiwalu ko sëñ bi daf ne bari na yum gis ci man yu tumuranke yu yu kiim yu yoo xam ne mosu koo nettali te matal gi ko yàlla matal la tax mu téye ko waaye bu ko yàlla matalul woon dana ko nettali ngir damoo ko loolu sëñ bi wax yooyu nag sëñ bi da ko cee gërëm ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jaar-jaar yoo xam ne soxna si jaar na fa ak moom moo tax biñ ko dencee poroxaan nag sëñ bi da daan bàyyi xel barab bi ba bi mu nekkee ci résidence surveillée yi moom sëriñ bi ku ko mës a nuyu te jóge Saalum rek ci soxna si dara ndax xam nga barab ba xam nga xam nga ci soxna si dara nangam ak nangam dana la koy laaj ci ñuy jóge Saalum ba e, ni ci sëriñ Basiru jote fekk na sëñ bi daan bàyyi xel soxna jaara xam ne wéet na te soxla na ku ko wéttili wax nañ ne am na ku ñuy wax sëñ baarataal dëkk ca fettoo e, ca gannaaw kër Mawa Mabawa dafa dafa dafa siyaare ji sëñ bi Jolof sëñ bi yóbbante ko ci mag ñooñu ne woon ne woon euh, Saloum mooy sëñ Maba Awa njaay kër Maba Awa sëñ Mbay Mbuuma Ndiaye sëñ kër Jëbu sëñ Moussa Paté Dramé digal leen ne nañ dem Poroxaan ca barabu soxna sa di ko ko nemmeekul euh, ñu ñu dem fa. defe naa sëñ kër Jëbu sëñ Baara Tall a ngi ko fekk pont noir bu Kaolack wax ko ndugal li sëñ bi joxe mu daal di dëpp mu dëppee dem poroxaan ànd ak ñooñu dem fa léegi euh, at mu nekk danañ sàkk weer woo xam ne dañ fay daje di jàng ay kaamil defaraat barab ba def fa seen këru bokk di ko dundal ni leen ko sëñ waa waxe ba daanañ ci invité sëriñ Basiru waaye sëñ Basiru amu fa woon kër ci jamono jooju kër yañ fa defoon ñoom la ca sëñ Basiru daan nekk foofu la sëñ Basiru daan nekk ba li sëñ Basiru amee nag ndigalul sëñ Touba mu baasaratan directement boo xam ne jàddut fen mooy sëñ bi xamal ko ne ko sa maam dafa maa feeñu xamal ma ne ma dafa soxla ko ko wettili ma bëgg nga wettili jël ma ko alors sëñ Basiru nag jël décision ci réhabilité carrément Porokhane nga xam ne loolu mbirum boppam la mu di fa ñëw ci ay jafe-jafe yu metti <laughs> parce que boobu boobu àll bi dafa fat àll bi dafa fat jamono yi fi ñëw wax nañ ne carrosse bi mu war bi mu ñëwee ba ñooro du dañoo wut ay jumtukaay yuñ ko daggale yoon wi ngir fas wi mën a am fu mu jaar ndax àll bu fat bi mu ñëwee ba poroxaan nag mu fanaan ci barab bi moo ñi àndaloon ñeent ñi àndaloon sëñ sëñ sëñ Mahmoud Diané sëñ Mët Laam sëñ Mbay Laam naar bi ñuy wax Mouhamadou Fall alxuraan te sëñ soloon ko alxuraan ci Mauritanie ñu la àndaloon bi mu fa fanaanee ba bët set la xëy ne barab bi fas naa yéene mu mel ne Touba fas naa yéene barab bi mel ne Touba te tuuba moom lu koy lu koy duppi lu nekk da ngay jël li Touba doon. xam nga sëñ Touba wax na ne dëkk bi mooy mawdiul fikrati wa dëkk la boo xam ne dëkkub xam-xam la waaw. ah waaw soxna sa wàllu nag du ko ndaw. Hmm, sa sëñ Moussa Ka dafa am lu mu wax lu am solo. daf ne daf ne. maam asta waalo nday soxna jaara bu dul konoog moom kenn du sampi dara lu wér la dafa sonn ndax yar bii ñu xemmeem ci soxna jaara muy jikko yu mat yii te rafet moo ko ci def te doonoon soxna su soxna su gudd fan wax nañ ne dund na téeméeri at ak fanweeri at ak juróom-ñetti at moom daan jàngale alxuraan ba ñu ko daan gis muy ñëw ku ko masaana seen da ngay jàpp ne góor ngay gis ndax du waaj ni jigéen di waaje ni góor di waaje lay waaj jàllaabe lay sol day kaalawu dangay ngay gis sikkim bi muy lang bu la toog di jàngale alxuraan fi mu toog mën na faa yendu du fa jóg te it tàmbali na dinaa di naafila kaamilu alxuraan bi mu amee fanweeri at fanweeri at ci lay def bu guddi jotee muy naafila ko al muy naafila kaamilu alxuraan ci juróom-ñetti rakka def na ko téeméeri at ak juróom-ñetti at yoo xam ne guddi gu ne mu naafay kaamil naafila kaamil bi ci juróom-ñetti juróom-ñetti rakka kooku kon du ko ndaw ba pare soxna jaara soxna astuwaalo dafa liggéey ci moom mooy daf soxna astuwaalo wax nañ ne da daan jël caqi pemeem yii ay takkaayam di ko jox sëriñ si ne ci réew mi naan leen dama bëgg ngeen ñaanalal ma yàlla doom yi ma yàlla jox yàlla def ci ñoom barke kon xeebu leen woon kon liggéey na ci soxna jaaral liggéey bu réeree bu baax a baax te loolu li li koy prouver mooy sëñ Mor Anta Sali Ahmad Bamba Sall mi mu nekkaloon moo ko joxoñ kër soxna Asta bi mu ko gërëmee bi mu ko gërëmee nekkoon nekkoon ne li soxlawuma dara luy jóge ci yow di ñëw ci man waaye li ma bëgg ci yow mooy doom ji ngay njëkk am na ko tudde rasulullahi sallallahu alayhi ki ci topp nag ma ko tudde bi mu daaneele rek soxna Sawaalo la ko joxoñ mu ñëw fa kon soxna Sawaalo jàmbar dëgg la salaatu fi kulli sayrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة في كل سهر وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر